mbokk daal ñi ngi nekk fii euh, di dund xare Badar instant bii nag dugg si léegi nag am na ko gàtt xel koo xam ne ko dem na tardé fii la Crémosène kilifa yëpp a ngi ni jàpp seen bakkan loolu nag bokkul ci mbir yi ñaaw na trop daal euh, parce que bërëb bu mën a defaroo rek jàppal ne mën nañ fa yàqoo te ñëpp lu baax leen fi indi kon nañ ànd wut lu baax parce que gis na fi ñoo xam ne que bis mbégte la mais ñi ngi taal euh, tàngal seen xol te loolu du yoon. banaana banaana banaana loo bis bi. waa xanaa sant yàlla rek bu baax ba baax di gën a sant Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadou si leer xaraba la nekk di xa ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu na wër ñoo ngi ne ànd ak Cheikh Abdou Karim Mbacké Serigne Fallou makarim axlaq fas yéene ñëw ci ndigal rek hmm. yal na fi Serigne Mountakha yàgg ci barke Cheikh na Ahmadou Khadim waaw kay sant nañ Serigne Touba bu wér ndax lii sagu murid yëpp la sagu bi islam la képp kuy jullit war ngaa sant Cheikhul Khadim ndax wax dëgg yàlla tey jii bañ xamee yoonu islam ba léegi Ndakaaru Njaay bañ ko sancee ba léegi mbooloo mu toll nii kenn mësu ko fee gis ginnaaw tey ginnaaw yàlla nag sëñ Tuubaa moo tax kon na képp kuy ab war ngaa sant sëñ Tuubaa bu wér a wér a wér dañoo ànd ak moom Serigne Fallou Mbacke ànd ak moom ñëw ci immigration Masalikul Jinaan mi ngi xam naa mbooloo mu bari mi tax boobu ba léegi dugg waaye sant nañ di ñaanal Cheikh Mouhamadou mu yàgg fii lool ta wér ba lim yéene liggéey Sëriñ Tuubaa moo defee ko ni mu ko bëggee ànd moom njabootu Seexul Xaadim gépp sant nañ Sëriñ Tuubaa bu wér a wér jërëjëf jërëjëf